sëriñ Bassirou Mbacké moom Cheikh Abdou Khadre porte parole xalifa général des mourides ak kan sëñ Makhtar xalifa sëriñ Jiiru Sougou waa daan ak kan nag sëriñ Bamba Sougou xalifa sëriñ Ahmadou Tafsir Sougou waa nag lépp nag ñu ngi ko def ci kilifteefu kan nag sëriñ Mama Sougou jàmbaar ci l'islam ja ñoo ngi ñaan mu yàgg fi loolu tànn ak wér ñu jëm nag ci quatrième édition journée culturelle sëñ Jiiru Sougou le 7 octobre lay doon ci théâtre la seen dilu sereno koy woote sëtam bu baax bi bëgg maam loolu mooy kan sëñ Ahmadou Sougou mi ngi nii toog sama wet da ngeen dégg léegi ki koy waxal ren nag jël bis ba tuddee kon sëñ Maxtaar Tàggat Sougou doon rakk sëñ Jéeri Sougou waaye nag xam ngeen ni bis bu rëy boobu ñu ngi ko yëgal le président de la République monsieur Macky Sall ak kan madame Faye sal première dame Amadou Ba ministre des finances jàmbaara ngoog ku bëgg l'islam bëgg bis bi nit woote bis bi kenn kenn kenn mënu la ci yaa yaa cay man ak kan nag. Aïda Sougou conseil économique et social Sophie Ndiaye Cissokho jàmbaar jàngook amul Saloum Dieng chef religieux Cheikh Mbacke Sakho ministre conseiller ku baax Abdou Aziz Diop ministre conseiller yaay ñëw ci bis de yaay ñëw le président de la république monsieur Macky Sall ak kan Cheikh Goumbala entrepreneur Doudou Ka directeur FONGIP ñu ngi ko yëgal bis bi Serigne Sidi Mbacke borom xaas ñigal yëgal bis bi ak kan nag alaaji Amar entrepreneur bala maa sori ma jox kenn koy wax ci turu alaaji Mbàkke fi fii ci Massalikul Jinaan muy sër Sile sëñ Sile Baye Fall. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh sëriñ Sile Baye Fall moo leen di nuyu fii ci Massalikul Jinaan ci cant gi nga xam ni sëtub seex jéeri waa leen sugu bu baax bi ñuy wax sëñ Ahmadou Sugu moo ko bëgg a defal maamam ngir bëgg sulliwaat baaxu maamam di ko fàttaliku di ko ñaanal te ànd koog waawaa waawaa leen gépp bi mu ñëwee fii nag fekk sëriñ Modou Mbaye sàmb génn man sëriñ si la Baye Fall ma nekk fii maag sëriñ Balla ñi ngi may Ndiaye Sanosi ak Omar Faye ñu ñëw ci appel bi di xam le ni Alaaji Mbàkke fay mi fi nekkal sëriñ Touba ñoo ko fi nekkal ñu ngi ci yow mbooleem koo xam ne dina ngaa sëriñ bi baa nga yaakaar ku yaakaar sëriñ bi ndax kat damay wax loo xamante nii bëgg naa ñu bari li ma ci déglu euh, Cheikh Jéeri Wadane Sougou Cheikh Omar Fouti Cheikh Ibra Fall dama leen a bàyyi xel bàyyi xel goo xam ni seen déclaration rek a tax ma bàyyi leen xel noonu ma leen bàyyee xel ah Cheikh Omar Fouti yu déclaré na Serigne Touba di ko wër ba Màkka ma wàññi ko ñëw ba Mbàkke ma doog koo gis joxe fa ab téere ni bu ngeen ma ko joxal maam Cheikh Ibrahima Fall. bi sëñ bi agsee moo ni agsi na Cheikh Jëri Wadane Sougou tuddee na sëñ tubaa ay doom te sëñ Touba ganewul àdduna loolu nag ginnaaw bi sëñ bi agsee dafa am ñu jóg wuy si ko ña ko déclaré ak ko ko feeñal ñooñu seen bët sori na. kooku ñuy wax euh, Adja Soxna Mariane Mendy Mendy di taalibeeb sëñ jirim sëriñ Fallu mu bàyyee ko ay doomam mu ànd ak ñoom rëgatu dox jëm ci sëñ Fallu sëriñ bi nee na mi ngi ko koy yëgal yëgal goo xam ni dox na ba fi moom mu mu jox ko carte invitation waaye loolu doyul la tax rek postéefam ak bëggam ak doxam ak moytoom ak bëgg yàllaam te wéetal sëñ jilim sëñ fallu ànd ak mbooloo mi doxuti sëñ fallu sëtam bi ñëwee Ndakaaru nag di ko fi sant di fi sulli ay jalooreem ngir bëgg ñu jaar ci am sunu borom ñoo ngi ko ci jàppale di ko wootelee te fas yéene faa teew alaaji Mbàkke fay nee na mi ngi mi ngi fii ci këram tey dafa amutug jot na amaana kon sax mu fekkee ko waaye nee na mi ngi woo bokki taalibe yëpp ñu fàttaliku Cheikh Jëriwaanal Sugu ndax fàttaliku ko mooy ku Serigne tubaa mooy fàttaliku Cheikh Ibra mooy fàttaliku mbooleem wali yu toppan Serigne Touba baa nga di murid sadiq mooy fàttaliku alxuraan mooy fàttaliku sunna mooy fàttaliku sunu borom allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa salim sëñ Ahmad Sugu nag mi ngi ko yëgal mbooleem naaru darman ko ku sant Amar Sugu jaxum Paba Sadi ak tudd Kajoor yëpp kenn ndax yéen a woote yéen day wooteel waaye ma jox kàddu gu nag ko ñëpp xam sëñ Bassirou Amar ma wax nag ci suñu bokk yépp nag aouzu billahi min asaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Bamba Sougou ak sëriñ Mama Sougou fii ñu nekk ci ndakaaru di fi woote di wooteel sëriñ Jéeri Waadaan ci woote bi nag sëriñ Ahmadou Sougou mii moo koy woote di ci woo mboolem kuy bokk ku di jullit ku di am di jàmm ku di dëkkandoo ñëpp ñu ngi leen di woo ca Sorano bàyyiwuñu benn mbokk nag dañoo xalaat ne bu ñu limee danañ juum moo tax ñu tàyyi ci limante waaye mbokk yëpp rek ak foo ci bokkee rek ñu ngi lay woo jullit yeeg mbokk yeeg rawatina taalibe yi ñu ngi leen di woo ca bis ba ñëpp ñëw ñu jàpp ca jàppale sëriñ Ahmadou ci bisam biim nga xam ni li ko tax a jóg mooy sant sëriñ Jéeri euh, feeñal kan mooy sëriñ Jéeri ñu ci woo mbokk jullit yëpp. sëñ Moustapha Babou yaa ci turu El Hadj Youssoufa Babou ak bokk yëpp. ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba suñu yaakaar tey ëllëg comme ni ko fi ñi fi jaar ñëpp ni ko waxee rek bis bi bis la boo xam ne des ciy fàttaliku rek jàmbaaru Serigne Touba ji fi nekkoon man nag. kàddu gi li tax ma jël ko dama fay ñëwal ci njabootu alaaji Yusufa Babu ak alaaji Xaali Baaba Joxumpa maa ngi wax si seen tur ñoom ñëpp képp ku ci askandoo bokk ci ñi ngi lay woo ci bis bi bis bàyyiwuñ kenn ndax bis bi suñu bis la bokkuñu ko kenn ñun ñëpp dañ cee am wàll wuñ ci war a bay kon nag bàyyiwuñ kenn ñu ngi leen ci woo ñun ñëpp sëñ Amar Diouf Raaya mi jiite kuréelu alxuraan fii ci masal ko jënan lañu jox kàddu gi bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi woo waa daaray kaamil ji fii ci barab bu tedd bii ci ndigalul sëriñ Ahmadou Sougou muy le 7 octobre di bisub dimanche fas nañu yéene jàng fii alxuraan ni ñu ko daa jànge ndax moom la sëriñ bi gën a bëgg moo tax mu di ko defal fii bu nu xëyee nag nu ko jàng bu nu jàngee ba xewlu soo fee jógee dem Sorano àggale ko fa maa ngi woote tey soññee waa Daaray Kamil yéen ñëpp na ngeen gaaw a ñëw. maa ngi jox nag soxna Gamou Diop mi wax ci suuru jigéen ni ma sànni ko jinaan yëpp ba pare dañ jox soxna Yaara Mbay bismillaahi rahmaani rahim. ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi di sant Serigne Touba di santaat sëriñ Touba ci pàkk bu tedd bii ñu toog mi Masaalikul Jinaan di ñaanal nag suñu jëwriñ Alaaji Mbàkke yu fay yàlla may ko wér yokk ay fanam ba lu mu naalal sëriñ Touba mu eggale ko ci jàmm maa ngi woote ci bis boo xam ne nag defe naa ne sëñ diir waa daan ko xamul dig nga ko kon moom la ñuy defal bis la set ke Sorano maa ngi woo daayira yëpp nag di woo soxna yi nga xam ne ñoo nekk Masaalikul Jinaan di kuréelu diwaan bi bu la setee yéen ñëpp 10 heures na leen fekk Masaalikul Jinaan bu ñu fi yendoo ba ngoon ñu soog a dem ca bis bi na ko ñëpp waaj nekk kuy jëwriñu daayira ak foo mën a nekk te bëgg Sëriñ Tuubaa woo nañ la ca bis boobu maa ngi leen di sant di leen gërëm waa Géejawaay a ngi nii toog ñoom fat aaw ak soxna Mbène Diop mi ne ci daayira bi ñeneen jëwriñ yëpp maa ngi leen di woo di woo suñu yaay ab sa kend bëgg mu ñëw ci bis bi ak waatil leen yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëñ Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ak njabootu sëñ Tuubaa yëpp di ñaanal suñu sang ba ca waa daan sëñ maama sugu mu yàgg fi lool sugu fara te ànd ak sama kàddu nag kàddu woote la ñu woote waa daayira xayru mu gépp di woote waa si daayira bi ñu jiital Cheikh Adama Niang ma ca Thiès ak soxna Mati la di woo Touba Ndiarème ak waa Kër baay Séni Niang gépp daayira bi ci dakaar ñuy woo soxna Wuli Mata Niang soxna Muna Gisee soxna Jéyna bi ak waa kër ga yëpp di woo Ousmane di woo Ami Diouf ak ñoom te nag seen gépp te xam ne bës bi suñu bës la ñun waa xayru Muna ndax xayru Muna bu ñu ko sampee sëñ Ahmadou a mii tey wooteel maama moo ko samp biir na suñu quatrième édition ñu ñaan yàlla yàlla ñu ci yóbbu ak jàmm ak salaam ba lépp luñ ci naal bëgg ko def yàlla ma ñu kàttan ak wér bu ñu ko defee di ñaanal nag sëñ Mamadou Sougou mu yàgg fi loolu Sougou farataan ak wér sëñ Ahmadou Sougou nag nee mi ngi woo ñëpp le 7 octobre waaye bu ñu xëyee nag fii la ñuy jàng alxuraan ji dégg ngeen ni ko Amar Diouf waxee huit heures pile na fekk jàngatu alxuraan yëpp ak ñu durus xëj mu di nag nag la ñuy dem nag Sorano ca théâtre mag ba dafa conférence bu rëy ku fay waxtaan